mouvement anti gouvernance sombre et di kuréel goo xam ni ràññee nañ lool ci dëkk bu sell bii di Touba gannaaw nag bu yàgg ba ñu tàmbalee lépp loo xam ne jëm na ci seen activité démb nag seen ak lëkkaloog Abdou Karim Gaye bu nitu dëgg ñu doon amal am ndaje mu yaatu moo xam ne ñu ngi ko doon amalee ci Touba Ndam am na. maanaam ndaje moomee nag yëkkati nañ ay kàddu daal di koy lal ci ndoddu njiitu réew mi di xam ne ni jamono ji Sénégal yàqu na daanaka ndax jikko te loolee ki leen ko yóbbee du kenn ku dul Macky Sall. waa APR. ñoom seen biir. ci biir seen kilifteef gi ñu kilif nit ñi ci xaalisu Sénégal. dinañ fay xaalis ñuy rey ñuy rey nit ñi di lekk seen ba noppi di defar ay vidéo di ko envoyé ci seen biir di saagante ay ndey ñun dañoo wees foofu gannaaw kàddam yooyee Ibrahima Samb ak ñi mu àndal di artu ci nga xam ne nag moo di njiitu réew mi di xam ne jamono ji élection yi nga xam ne moom la ñu dëdmal lépp loo xam ne jëm na ci wàllu fitna loxoom génn ci bu dee nag élection yi nga xam ne da koo bëgg ñu njaaj ñun mouvement ba bee duñu nangu lu ni mel bu la neexee nga kar ko la neex mais ngir ki ngay kari ngir dagg boppam wala ngir gaañ ko bul fàtt ni yow yóbbaale bopp bul yaa bul fàtt bul yaakaar tam sa bopp dina dem dellu si waat jàppal ne yow tam sa bopp mën na faa kon violence bi mën naa ñàkk rawatina ngeen ko utiliser ci wàllu moyen waa affaire li jàpp mooy dañoo jàpp dañoo am xaalis dañoo am doole. xaalis ak doole politique gul xalaat ak science. leneen loo xam ne itam yëkkati nañ ko ci ay kàddu ci ndaje mi nga xam ne nag moom la ñu doon amal foofee ci Touba Ndam xam ne ne beneen fem beneen opération boo xam ne taxawal nañ ko muy Macky sàll zéro voix ci Touba maanaam njiitu réew mi Macky Sall bëgguñ mu am benn voix ci dëkk bu sell bii di Touba ñi nga xam ne ñi ngi jàppal tànk Ousmane Sonko ak ñi mu àndal nag daal di taamu ndaje mi defee ko ci wetu kër maam Xari Mbàkke gannaaw ay laaj yoo xam ne samp nañu ko ndax loolee ñu ngi xam ne jamono ji ñoom seen yoon nekkul ci keneen waaye nag li nga xam ne moom la ñu warloo askanu Sénégal muy bëgg seen réew dinañu ko def